asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waa As-Samadiyya man la seen bokku taalibe alxaaji Fallu Buso Tamba maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi Cheikh Abdou Samad ibnu Cheikh Abi Madiane sëriñ Chouaïbou di ko ziyaare bu baax a baax a baax a baax di ziyaare mboolem kilifa yi ne ci groupe bi yëpp rek xam naa Eh, bisu tey bii moom day bis boo xam ne eh, barkeelu ci dadul xëy na lu mën a ñàkk ci ku ku ci am lu mu ci mën a barkeeloo lu mu néew néew waaye bu sëñ Abdou Samad waxee ba noppi eh, day mel ne di ci tegaat leneen sax du doon ay teggin ci ñun xëy na ndigal rek ndigal lañ jot rek te it nag am seede rek boo xam ne bëggoon nañ koo seede ndax li nga xam ne moo aju ci eh, wàccaayu sëriñ bu mag bi ci ak ñibbiseem Touba eh, loola moom ak ñëw baag ñu ko àndeeg ñuñ fu fekk ak nam demeeg yépp bokk yu baax yi jiitu wax nañ ko rawatina Cheikh Abdou Samad nga xam ne bu xasee wax moom eh, daanaka di ci teg leneen dana dana doy waar ci ku mel ne man waaye man dama bëggoon a seede rek ci Cheikh moom mi nga xam ne ku tudd bis bii di bisub ñetti fan ci aw tamxarit sa xel dana dem ci ci moom ci taxawaayam ci njàmbaaram ci e, jomam waaye ci sàmm ak matal kóllëre ki nga xam ne moom la moom la ko ku baax ki way jëlam bu baax ba sëriñam bu baax ba Seexanal Xadim bàyyee woon nam ca taxawee dafa rafet lool te mat a kañ te mat a te mat a te mat a fàttali ndax mu doon bind royukaay ci e, képp koo xam ne rek bëgg nga roy bëgg ngaa roy hmm, da am loo mën a royee ci moom loolu rek moom mooy li nga xam ne moom lañ moom lañ bëgg a seede e, Cheikh Mahamadul Moustapha nag xam ngeen ne bu fekkoonte ne loolu yi ñuy wax naan alkamaalu lillah mat mat dëgg-dëgg ca nam nam waree dëgg-dëgg yàlla rek ko def waaye moom day ci àqam eh, buñ ko sañoon wax dañuy wax ne ku mat la ku mat fànn yëpp eh, ndax koo xam ne eh, danga feeñ fa nga war a feeñe ci diggante ñi ko seq diggante Cheikh al Xadim mi nga xam ne yu naxam ani taarif moom kenn du ko xamle waaye ku mel ne soxna Aminata ca fam bokk ca ndaam ak Eh, ak ak ak ki ñoom rek eh, doon koo xam ne misaal misaal mi mu joxe mi mu jàngale ci jigéen joo xam ne eh, da nga bëgg lu baax bëggal sa njaboot lu baax tax mu jaayante tax duxiya jël jëmmam jël ruuxam gu seer gu gànjara googu jaayante dem ngir wuutu gu mu ca wuutu ku baax ki ak mbokkam mu baax ma soxna xaw bu sa Euh, te boobu ba mu koy def wax dëgg yàlla euh, soxla woon nañu ko njabootam soxla na ko sëriñ bi soxla na ko euh, ñëpp soxla ko waaye mu mu mu ne duma bàyyi sëriñ bi ngay dem ndax yow danga nga da doon njëriñal jaam ñi doon buntu biir maa ne ci jaam ñi soxna bu sumi sama mbokk mu baax mi itam duma ko bàyyi mukk muy dem ndax moom itam am naa ñeewante ci ci njaboot gi moom daal yooyu yëpp ni ngeen ko xamee rek tax mu mu ne maa leen di demal joxe boppam loolu lu rëy rëy lu mat a la waaw euh, kon euh, loolu jàpp naa ne euh, ku ko def te te te ba mu koy def boobu Cheikh Mouhamad Lamine Baara niñ ko niñ koy nettalee mi ngi mi ngi mi ngi dégg nga nopp ñu baal ñu ci kàddu gi boobu mi ngi toll ci di di di di dégg nga di nàmp xaw a maaseeg soxna Mariama Kunta mi nga xam ne moo moom itam moog Cheikh Amadou ñoo bokk lépp nga xam ne ñoom la soxna xawa a bu sa boole àggaleel leen seen seenu seen seen seen seen seenub nàmp loolu rek kon doy na sëkk misaal ci euh, ci ci ci wayjur wu baax wu yiw wu sell woo xam ne keroog bi mu fi jógee sëriñ mag bi wax ci moom seede seede yu rëy ci moom seede ak njuboom ak maandoom ak sàmmoom xamle ba sax wane bind bind bu mu ko bi nga xam ne moom la ko mujjee jàngal ci ar risala ci risalat ibnu abi zeydin al xayrawaani loola rek doy na sëkk misaal ci képp koo xam ne jigéen nga te bëgg a kon Cheikh Cheikh Mamadou Moustapha bu bu bu bu soqi koo foofu ñëw mel nii mu mel euh, jël naa sëriñ mag bi nga xam ne mooy waajuram loolu rek doy na sëkk doy waaye la ci dolliku mooy bi mu ñëwee te jaar fi mu fi mu jaar feeñ fi mu feeñ euh, ñu ñu jàngal ko yar ko waajal ko wàccaay wi nga xam ne moom lañ ko waajal muy muy wàccaay wu mat sëkk euh, dafa daal taxul mu doyloo baaxi baaxu askan wala euh, maanaam sëriñ bee ma jur waaye dafa daal di jëf nag liggéey taxaw taxawaay bu mat sëkk ci fas yéene yoon wi sëriñ bu mag bi xàll jaar ca te jaarale ca mag ña jaarale leen ci ñoom ñoo ñi nga xam ne mook euh, euh, rakkam yu baaxee Cheikh Amadou Fadal ñoom ak ak ñiñ maaseel jamono ca ca ca yoon wa sëriñ ba jaarale woon saadi xam yu njëkkee foofu rek la leen jaarale lu jiitu mi dem ci géej gi nga xam ne ñooy ñaareelu génération bi euh, ba wàccee leen ca maanaam tarbiye leen ci diggante gànnaar ak ak ci yéen jolof tarbiye gu metti lool euh, wëlbati ko seexal leen nii mu seexale seen way jur yu baax yi ca ci wàllu ruux ak ci wàllu ci wàllu deret euh, ba digal leen ñu sanc ay dëkk ci daanaka 1913 rek ñoom daal dinañu yeeweeku ci digalal sëriñ bi dem sanc ay dëkk tuuba Touba Cheikh Moustapha ngeen ko xamee sañc xusnul maab muy Tindodi Cheikh Amadou Fadal sanc Ndindi ak eh, Cheikh Massamba Darul Karim ak eh, ñooñu seen seen seen maanaam seen bokk yu baax yooyu nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ñoom ñëpp rek eh, loola rek loola booba rek maanaam bañ koy def booba seeni at ci zahir at yu néew la booba Cheikh Amadou Moustapha Cheikh Amadou Fadal xam ngeen ne booba daanaka ci ñaar fukki at ak ñett juróom ci la ñuy toll waaw ci lañ sanc dëkk yooyu gor tool yooyu def ko mu nekk daaray daaray xam-xam daaray jàng daaray daara yare daara tarbiya daara liggéey sàkk lu lew mbay ngir mën a ngir ngir ngir mën a jaamu yàlla waaye mën a liggéeyal sëriñ bi jël seen yitte jëpp nag ne ko jàkk def ko nag ci eh, bëggu sëriñ tubaa gi nga xam ne moo doon jumaa ji nga xam ne keroog ba mu leen koy jox da leen wax ne eh, ndigal la lu ma suñu Cheikh Moustapha moo ko bind ci ndénkaaneem yi nga xam ne da ko daan mm, bind ci làkku arab di ko di ko gaaral di ko wax di ci waxtaan ak mbooloo mi ci eh, maanaam guddik tey jii am na ci ndénkaane boo xam ne ma ngay xamle naa ma ngay xam leen di wax ne bokk na ci seenu texe gu mat sëkk yéen murid yi mooy ak it ngeen war a séddu cër bu doon ci am la ngeen bëgg mooy ngeen def seen yitte jëpp jël seen yitte jëpp jëmale ko ci maanaam ndigalal sëriñ Tuubaa li nga xam ne moo di jumaam ji nga xam ne moom sëriñ bi ci boppam moo ko digle wax ne ndigalal yàlla la loo xam ne yàlla moo moo ko ko sant jaarale ko ci euh, sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama sëriñ bi jottali ko ma di ko jotli daal gi teg na wa ma ala rasuli illa al te ndaw amul dara waru ko lu may rek jotli ab ab yonent loolee wax na ko wax it ne sëriñ bi dèjà teg ne képp koo xam ne feeñ na ci da nga feeñ ba faw loolu Cheikh Moustapha bind na ko ni ko Cheikh Modou Fadel waxee moom itam ci ci ay bànn ñu dégg ko Cheikh Moustapha bind na ko loole ci la ci la daal di taxaw taxaw temm ba jëf ca jëf joo xam ne tey jii taarix du ko fàtte du ko fàtte te waxtu wi sëriñ bi Euh, ñibbi si Touba ku ne xam na ne ñibbi si sëriñ ñibbi si sëriñ bi Touba rek doy na sëkk euh, xatb maanaam mbamb wala wala wala wala nattu wala musaab wala wala wala wala euh, wala daal daal maanaam nattu daal bu réer daal gënt màgg daal Cheikhul Khadim ñibbi si Touba ak ki mu doonoon ak ni mu tolloon ci boroomam ak ni mu toll ci xoli jaam ñi ak li mu jëf ak ak fi mu jaar ak noon yi ak yooyu yëpp sëriñ bi xëy xëy ñibbi si Touba loola su fi bàyyiwul woon ku mel ne Cheikh Moustapha ca mat ga ak jom ja ak fidwa ak njàmbaar ga ak sàmm ga ak ragal yàlla ga ak xam-xam ba ak nite ga eh, jël wilaaya ga teg ko fee te ëppale ko ñëpp nag am wilaaya lool waaye mu jël nite gi rek insaan yi xam ne ku daan gis sëriñ bi ba noppee koo gis daan jaxasoo sëriñ bi ba gisatoo ko loola la fa la la la am solo dëgg dëgg dëgg mooy jël ak nite ak xel mu rafet mu ragal yàlla lal ak ak maandu ak sàmm mu daal di jiital loolu liggéeyal sëriñ bi ci eh, yooyu nga xam ne moo di moo di moo di moo di ndigalam yooyu eh, ba noppi it te loola eh, soo ci dollee jafe-jafe yi nga xam ne jamono doon na ko dund ci bi fi sëriñ bi jógee diggante 1927 28 29 ba ci année 30 yi nga xam ne crise mondiale am na ba ci 32 yi nga xam ne jamono yi nga xam ne mi ngi posé première pierre jumaa ji yooyu yëpp mu def ko ci jamono ju méttee méttee métti jamono jooju sax daanaka mën ngaa wax ne maanaam métit wa daa wéy peste ya di am ba ca euh, dégg nga première guerre mondiale ba si ñëpp laxaat dégg nañ mu ne euh, Cheikh Moustapha day bu fekkoon fekkoonte ne bi maanaam bi ko yàlla randal du woon guerre bi woon guerre bi kon jumaa ji euh, dana sori lool wala sax dana àgg wala bu soriwul bu bu àggul dana sori lool te bi mu fiy jógee itam ku ne xam na ne sori woon na kon kii li mu liggéeyal Sëriñ Tuubaa liggéeyal ko ko ci njabootu boppam gi ñi nga xam ne ñoo ko tolloon ci jàng mu taxawu leen di nga jàngal leen góor ak jigéen nag Euh, fexe ba euh, wuutu seen jur bu baax wa ci ñoom ba dégg nañ seede yu rafet yu am solo yi soxna may mënatu daan seede ci moom daa xam ne Cheikh Moustapha day euh, bi ñuy gën a doon gone dañoo jàppoon ne sax bokkuñu bàyyi dañoo jàppoon ne sax suñ tubaa juru ko ndax lan woyofal boppam gi ak nim ñu daan taxawoo ak ak nim daan wàcce boppam bañ bañ mën di jot ci moom loole sax ñun sax dañoo defoon ne suñu taalibe bàyyi te moom maanaam dëgg la fil xaqiqa jàppe boppam loolu la jàppe woon boppam kon loolu daal di solo loo xam ne mënees su ko ñàkk a seede bis bii nga xam ne bisub euh, cheikhul xadim la waaye bisub cheikh mahamadul moustapha la ndax moo ko daan moo ko daan woote di ci soññee soññeem bu soññeem yu rëy yooyee ak njàngaleem yu am solo yooyee kon nag ñoo ngi ci ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ngi ko ci delloo njukkal bu baax di ko di ko fàttaliku bu baax di fàttaliku njaboot di fàttaliku njabootam gu baax gépp ñi nga xam ne ñoom ñoom la fi bàyyi te def ci ñoom la ne ca moom euh, tàmbulee ca euh, sëriñ si Ahmadou Mbacke ak sëriñ Mbacke Madina taawam taawam yu baax yooyu nga xam ne ñoom ñoom itam biñ ñëwee mujjewuñ puso ba mu réer taxaw taxawaay bu rafet bàyyi fi seen njaboot itam ñu ñuy siyaari seen njaboot di jël siyaar bi di ko teg ci loxol euh, sëriñ Cheikh Ahmadul Muxtaar ñi nga xam ne moo toogee jotaay Cheikh Moustapha di ñaan suñ boroom yàggal ko fi lool te wéral ko yàggal fi Eh, doomam yu baax yi nga xam ne moo di eh, Serigne mbake eh, Mbacke Bombali ak Serigne Abdourahman Serigne Cheikh Gaïndé Fatma waaye yàggal fii itam seen doom di seen jëwriñ di Serigne Moustapha Ndiagne moom Serigne Mbacke di leen ñaanal suñu borom daal taxawu leen rek yaa ñun tey sax yàlla dogal na màggal gi def nañ ko fii ci Touba Libreville waxtaan wa itam daanaka ñoo ngi ko jëmale woon rek. ci dund ak liggéeyu Cheikh Mouhamadul Moustapha ci nekkuk sëriñ bi ak ginnaaw ak ak ak itam ginnaaw sëriñ bi ci yoon wi ak ci diini ji ak ci réew mi euh, kon ñoo ngi ci ndokkeel ñëpp di ñaan yàlla suñu borom dolli ñoo fayal Cheikhanal Xadim dolli ko ay ngërëm dolli ko ay ay barke li ko ay leer yoom ndax moom ku ne xam ne ne euh, tey ji la gën a jege boromam lam mënoon tey tey tey tey ji la ko gën a man kon yàlla ñu yàlla yàlla ñu ko yàlla fayal daal te yàlla xéer ñu ci bëgg ko Euh, bëgg goo xam ne day day doon bëgg goo xam ne yàlla rek kay tax euh, te tey muy tey muy dëgg ci ñun yàlla yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo moo toogee jotaayam yàlla kàttanal ko ba mu àggale yéene ak naal yi nga xam ne naalal na ko Cheikhul Khadim am te mu ànd ko ay rakam ak taalibe yëpp ak ñun taalibe yëpp euh, ñu gunge ko ba liggéey bi àgg ba mu tàmbali yeneen ba àggale yooye àggale yeneen yeneen ak yeneen incha allahu taala. bi barakati abdillahi wa xillihi wa xibbihi wa xadimi rasulillahi wa xalilihi wa xabibihi ahmad abni muhammad ibni habibillah allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallam di gën a ndokkeel bu baax si Abdou Samad di ko ñaanal moom itam liggéey bii mu nekk di ci liggéeyal sëriñ bi te lal ko ci bëgg gu wér bëgg sëriñ Tuubaa gu wér ak pasteef ju ju wér yàlla na ko yàlla sàmm moom itam te may ko ndam te defal ñu ko ñun ñëpp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh